à xaw ma waxtaan ngeen xaw ma mais commencé gu leen or Thiès doit être le laboratoire de la mise en œuvre de la nouvelle politique de la nouvelle structuration du parti bi nga xam ni Idrissa Seck moo ko définir mais on est on marche à pas de caméléon or dañu waroon réussir très rapidement installation Thiès dem ci département bi dem au niveau national malheureusement on traîne le pieds dama ni su ma fekkoon benn nit damay tàmbali damay également chaque quinze jours dinañ woote rey réunion fii ci Sévère les anciens la nga xam ni pas yi dox bu baax sax mënatuñ ko chaque semaine ñu réunion chaque semaine chaque lundi pas yi réunion ñun on est là on est dispersé chacun est là à se à digérer ay mbiram parti bi réunion baax na bu ñàkk réunion baax c'est pas ton problème gars yi di fexal Idriss Seck baax na fexaluñ ko baax na yow daal te es dans ton petit truc muy man ak sama morom laa yemale ah. ndax it li may wax yenn saa yi ma woote yenn saa yi du ma mais le minimum suñu wootee ñu xam ne pour Idriss pour Idriss Idriss war nañu jaral tous les sacrifices ndax ku ci nekk defal na la loo xam ne su doon yow rek doo ko am mënoo ko. kon waroon nañu jaral ñun ñu sacrifier sacrifice bu nekk nag man étudiant laa ànd ak moom ca laa commencé sacrifier am na ñoo xamit ba ñuy Idriss Seck da leen ci fekk ñuy sacrifier ay garmi faa la ngi ni lu ne daj nañ ko ci pas dem ba xarit su ma garmi di expliquer li ci paa yu daj sax damay jàpp te mu ngi nii paa baa ngi ni suñu wootee mu daw ñëw doyen Jacques ñii ñëpp liñ ci daj ñun jeunes yi nag ñenn saa yi Ousseynou yi leen daj leen di sànni xeer ne ko su ma leen di wax rek c'est pour ngeen takk seen dikk ndax dama xalaat ñu jeunes yi yenn yi ñoo ko mën léegi kon ñun jeunes yi ci ñoom la yaakaar ak jigéen yi kon bu leen xalaat ni dañ leen di sànni xee nañ doon def takk suñu dëgg suñuy dàll suñuy jiin dugg ci dëkk bi wax ak nit ñi loolu la ñuy xaar ci jeunes yi mais yi aussi animation jigéen ñee ko fi mën nañ waxante dëkk man ñi nag seen expérience ñu bokk ak ñun man loolu laay invité nit ñi Thiès nag. moo ma a nekk le modèle mais malheureusement suñ deful ndànk Thiès dina suuxal Idrissa Seck ay responsable am dinañ suuxal Idrissa parce que est-ce qu'ils li mu leen dénk est-ce qu'ils auront mérité place bañ nekk ñu ne prise de conscience la j'ai dit prise de conscience la Lamine Diallo ngi nii di ñëw di di nekk en retard or moo faroon njëkk moom le plus jeune maire moo faroon njëkk takk ndiggam mais mu ngi nii il est un retardataire donc ndax ñun jeunes yi ñun jeunes yi wàcc naa ñun Idriss Seck lu mu am lu mu am bokk na ko ñun nañ waxante dëkk ñun jeunes yi moom vraiment jox nañu lu mu amoon jox nañu kon ñun nañu takk suñu dëkk nañ takk suñu dëkk man de loolu laay demander jeunes yi duma leen sànni xeer dama leen di encourager pour ngeen motiver wu ndax am na loo xam ne duñ ci xaar mag ñi duñ ci xaar jigéen ñi duñ ci xaar kenn nañ jóg <coughs> mag ñi vraiment paa yi ànd nañu Ablaye Wade 74 ba léegi ànd nañu sa Seck mais paa nag suñu leen noppalu nag kan moo leen na noppal kon man pour man paa yeeg mag ñi moom mën nañ leen a dama ne yeewu mais honnêtement buñ xaarati ñoom engagement bi ci ba jigéen ñi seen doole bëriwul bien que nag ñu ngi def kon li ci des ñan la mooy ñun seen nañu takk suñu digg y un danger qui nous guette te loolu laa bëgg a partager gi yéen. dama ni leen suñu toogee nii sàggan continuer nii bee bu ëllëg lu am ñu xam ne ñun la Idrissa Seck wàcc naak ñun de wàcc naak ñun nag élection bu fi am gañe na poste bu mu am jox nañu ko mu ngi dem lijjanti leneen est-ce que ñun mérité nañu lim ñu jox pour ñu mën a préserver ko sa base politique ba mën ko accompagner ba mu egg fa mu jëm kooku nag ci ñun la suñ ko réussiree mérité nañ ko suñ ko réussir ñu xam ne ñun ñoo sacrifié Idrissa Seck man lu leer laa leen di wax te ni muy demee nii suñ ko continuer bu yeboo ñu xam ne ñu ngi sacrifié Idrissa Seck y' a pas de prise de conscience et tous les jours ñu nekk en face de ñun ñu ngi liggéey di def lu nekk pour nasaxal ñu bërki dem moo ci mujj ak ab gi nii na na nangu ci nangu soirée nangu soirée bu kër ceeb bërki dem ngeen dégg mais Augustin gis na ko te kooku ñëpp xamoon nañu engagement bi ñun parce que est-ce que animation moo amul ba mu dem am lan ndax suñuy réunion di di di di di di réunion di gisante di liggéey en plan d'action de travail nit ñi bëgg nañ Idriss Seck nit ñi kenn du bëgg Idriss Seck di ko bañ bëgg nañ ko bëgg nañ ko jàppale sacrifice bu ne def nañ mais est que boobu ba léegi taggat nañ seen loxo loo xam ni dina tax. ñu gën a motivé wu gës gën a gis seen bopp ci biir parti bi continuer li ñu doon def ak Pape Idriss mais loolu suñu responsabilité la suñ ko deful la faute ci ñun la moo tax ma ni il faut que ñu gën a takk suñu ndig gën a conscient li ñuy géte sinon on l'aura sacrifié lu leer laa leen di wax li mu jaral Macky Sall jaralu ko woon sax Ablaye ndax Macky Sall moom xam ne Idriss Seck rek ku mën a daaneel Ablaye sax da doon def rek ndax bëggoon na ko peut-être neutraliser mais Macky Sall question de vie la ou de mort pour moom ndax xam na ni Idriss Seck moom donc moo ko mën a daal xam nga ay les autres opposants là ñooñu du ñooñoo mën a yëngal Macky Sall kenn la muy Idriss Seck tey wax naa leen ko rey réunion bi passé Macky Sall dugg na ci département bi joxe na ay oto joxe xaalis pour nit ñi dem wax ak les conseils ba ma ni leen loolu xibaar la c'est-à-dire que Macky Sall est conscient que c'est Idriss Seck aujourd'hui qui est adversaire politique capable de le renverser mënuñu am loolu ba pare de ko sàggane nag kon nañu gën a takk nañu gën a taxaw nañu gën a liggéey jàppale ko beneen bi peut-être dama leen di wax résultat wu référendum baa ngi mais résultat wu référendum bi day bouger mais day bouger dans le mauvais sens pas le bon kii dans le mauvais sens parce que dafa am ay événements yu yu ci dugg jëw vous donne l'exemple de Ndiéyène Sirah le mort n'est pas venu le notre notre scène est là Abdoulahan Ndiéyène Sirakh on l'avait gagné avec une différence de 2008 voix 2008 ñaari junni voix lañu gagné ci Ndiéyène Sirakh ak juróom-ñett mais tey le maire de Ndiéyène Sirakh est parti est-ce que les 2008 voix suñu su demee peut-être du yóbbu lépp mais au moins xalaat leen ni mille yëpp ba mille cinq cent yi day def loolu suñu écart day gën a wàññeeku am nañ yokk loolu est-ce que am na fu ñu koy est-ce que am na commune boo xam ni lañ fa gañoon dinañ yokk score bi est-ce que am na commune boo xam ni yaakaar nañ ko gañowaat loolu la war a xalaat suñ ko xalaatul am ci ay solution nañ xam ni ñu ngi sa ñu ngi sacrifier Idrissa loolu nag nañ toog nii rek joxewu ko Lamine Diallo toog bureau il gère ñoom Mantoulaye seen groupe gi tout ça dama leen di tooñ rek tu vois au au nord dafa ni moo moo ay gaynde gi fekk non loolu doyut score bi mu amoon daf ko war a yokk pour que écart bi ñu am 2008 voix yooyu ñu am lu ñu ci mën a combler au nord ça suppose que ngeen travailler mettre seen équipe yooyu mais liggéey pour que fi ngeen amoon ay score yu wàññeeku wala fi ngeen perte ngeen gagné ko c'est ça le te loolu c'est un travail méthodique la laaj méthodique suñ ko deful bee boo ñu xam ni moom ñi ma leen wax on est en train de ci fi ñu toog nii ñu ngi branché ñu ngi koy ñu ngi fiyee branché dañu yéeg-yéeg ñun ñëpp ànd ak moom ci suuf te loolu prise de conscience la laaj man c'est à ce niveau là que je souhaiterais vous interpeller <clears throat> c'est à ce niveau là que laa bëggoon ngeen gën a bàyyi xel li nga xam ni mooy <clears throat> moo ñu dab ak la commune de Thiès est moo fi commune bi nga xam ne moom ëpp électorat ci département de Thiès la commune de Thiès est commune de Thiès est chaque année ñoo koy gañ mais écart bi ñu war a gañee moom la war a yokk pour que li ñuy perte ci département bi ñu mën ko fa combler commune de Thiès est dañu fa war a liggéey ba minimum ñu am cinquante pour cent de l' électorat su ñu amoon 50 pour cent ndax comité Thiès Est c'est pour cent de l'électorat du département c'est presque un électeur sur quatre mais on a des scores bon on mais li ñu bëgg ñu liggéey boo ba score bi ak écart bi ñu am foofu plus ou moins benn écart boo xam ne dina mën a participer ci liy combler le gap au niveau département loolu la ñuy demander waa Thiès Est Thiès Ouest bon là-bas bon Idrissa l'a di benn tànk yi foofu lay yànqee bon fa lay yëngoo bon je pense que on est en train je dis nous parce que ci laa bopp fa laa dëkk il faut que ñu gën a organiser waat pour que les 800 voix yi ñu am dem ba am écart u 2000 voix et ça demande un travail mais également sa demand une cohésion une un travail d'équipe loolu lay demander à Thiès Ouest et loolu moom vraiment je pense que ñun ñëpp war nañ ci travail Le département est assez complex On a des communes ci département bi yoo xam ni il faut ñu daal di fay gën liggéey mais il faut ñu am renforcer le personnel politique bi ñu am au niveau du département dans certaines communes te waa commune bi aussi di dem di jàppale waa département d'ailleurs moo tax moo doon wax ajaa Adja Garmi ci jigéen ñi suñu sañoon ñoom ñu duggaat ci département bi ndax jigéen ñi mën nañ ci dara Adja am na expérience bi ñoo yii ab salaay wax naa ko bërki dem kër ceeb ay mbokkam lañ nangu dem na mais ay mbokkam fa dëkk mun na fa dara euh, Aminta Ndiaye amoon na dara ci département nu mu tudd ñaaya kan amoon dara ci département kon loolu dafa am solo ngeen àndaat def bloc duggaat ci département bi ci côté jigéen loolu day jàppale parti bi au niveau du département beneen bi nag mooy suñu responsable yi muy Ibrahima ñoom. Euh, waa Mpaañ waa Thiénaba yaa ngi nii donc waa Kër Moussa euh, waa Nooto yi nan la ñuy def ba jàppale leen waa Fandène Ramo ñëw na. waa Kayar doyen Moussa Ndoye Xombol dem dugg fa jàppale leen Xombol ils ont fait un score très honorable le maire dem na ñoom ñoo ko gagné mais il faut ñu dem jàppale ko consolider loolu pour que victoire boobu bañ échappe ndax ñoom seen stratégie c'est simple fi nga xam ni perte nañ ko dañ fay jéem dem jéem a récupérer mais fi ñu am score bu mag dañ koy renforcer moo tax nag lu travail du yomb ñun nag moo tax lu mu leen jaral daf ñu war a jaral ñun ñaar ñu gën a takk suñ ndigg gën a jóg gën a dem liggéey suñ ko deful ah moom daal affaire baa c'est pas simple mais il faut une prise de conscience une prise de conscience moo tax Idrissa li mu wax c'est simple nee na nañ organiser parti bi par centre de vote commune bu nekk nombre de centre de vote yi fa nekk nañ fa créer nombre de d'équipe politique ñu tudde ko direction politique de centre de vote par exemple soo jëlee ouest 18 centre de vote lañu am imaginez centre de vote bu ne ñu def fa équipe politique boo xam ne day liggéey nag pas équipe politique boo xam ne dañ koy installé pare mu dem tëdd di nelaw ndax ñun on peut vous aider centre de vote bu ne ñu jox la nombre d'électeurs ya fa ne nombre de bureaux yi ak lan moo lan lañu war a def ba am cinquante pour cent nga xam ni loolu mooy sa objectif yow liggéey pour nga am cinquante pour cent centre de vote bu ne mun nañ leen jox les éléments loolu moo leen di dimbali ku nekk takk ndigam jeunes yi xam ni war nañ wut tant de jeune les femmes xam ne war nañ wut combien de jigéen les adultes xam ne on peut avoir tant de temps d' adultes si on le fait on est sûr stratégie boobu Idrissa définir moom suñ ko appliquer dañuy gañ mais ñan ñoo koy appliqué te taxawaay la laaj en tout cas je pense que Idrissa moom il a assez réfléchi il a assez responsabilisé les gens li ci des la balle est dans notre est-ce que maintenant on aura mérité sa confiance ou non kooku ku ci nekk yow yaay ciy tontu sa bopp ba tax na kon sur ce plan là man du ma ci loolu laa ci doon wax je pense que je voulais même que commune dep commune bu nekk ci département bi xam ses ses ses résultat li nga xam ne moom lañuy ñu xaaj ci ñoom dama leen di jox exemple Ndiéyène sira Ndiéyène sira mu ngi am 9610 électeurs 21 centre de vote a fa nekk Ndiéyène Sirax 21 équipe politique la ñuy xaaj ci yéen centre bu ne am équipe minimum 10 personnes waa kii kii baa ngi nii nu mu tudd composition c'est ça qu'on attend de vous ngeen installé ko nag fii yëg au moins fin novembre su ngeen paree. dem installé ci seen responsable eh, kii num section jeunes yi section femmes yi section anciens yi enseignants yi après ngeen def seen meeting suñ ko defee sur l' ensemble du territoire départemental soo ko def bureau départemental je pense que ñun ñëpp chaque commune ce dossier ngi nii lii nag je dois le faire au niveau national du département de Thiès rek je dois le faire au niveau des quarante cinq départements du pays kon donc dañu war a terminer très rapidement Thiès ñu soog commencer à l'intérieur du pays et responsable yi nekk Thiès dañu war a dem aussi ànd ak ñun à l'intérieur du pays def installer ko par exemple si on envoie Bokum à Podor ci mbokku tukulóor yi war na ko mën a installer sans problème ndax ñenn ñi dégguñu olof dina leen mën a làkk tukulóor donc genre yooyu mën na nekk missionnaire comme keneen mën na nekk euh, Cheikh Ndaw wala Mantulaay genre yooyu ku ci nekk dem ndax affaire bi nag nañ xam ni xolu parti bi Thiès la. mais également détermination bi waa cees am kenn amu ko ci kon bu ñu sàggane suñu bopp bu ñu sàggane suñu parti su Idrissa gañee Thiès a ci ëpp avantage su perte nag ñun ñëpp ñëpp la ñuy ñun la ñuy reetaan kon bu ñu sàggane suñu bopp nañ xam li ñu yor nañ xam lim ñu si aussi sinon Idrissa en réalité dafa naan ñi ne cees ñëpp su ma waree man wàcc cees man pour defar ko kon ñoom mérité wuñu la et il a raison Idrissa à 28 ans mu nekk directeur de cabinet Ablaye Wade ñafeel ko ba gagné 28 ans ñun ñu am ay 40 ans nekk ay paa ne fii lu nekk mu jox ñu ko mënuñu ko sax defaral départ commune bay bëgg a perte commune walla département ñun mérité nañu kon mu bàyyil ñu ki nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg am nañ expérience bi paa yaa ngi fii lépp def nañ gis nañ leen à l'œuvre am nañ moyen li ñu am ci moyen. opposition bi amul même ñenn parti au pouvoir yi sax amuñu ko mais est-ce que kon mérite dañuy dañuy liggéey am liggéeyuñu il faut qu'on se dise la vérité que ne liggéey ñu xam ne ñu liggéey suñu liggéey nag ñu xam ni liggéeyuñu te on aura sacrifié Idrissa benn yoon bu jeex c'est ça la vérité man moom loolu laa ci bëggoon wax maintenant euh, techniquement dafa xaw a am pas Modou te ñu war fa concentrer nos efforts. pour réduire les écarts il faut ngeen xam on a un écart à peu près de 1700 voix à Kër Moussa parce que Kër Moussa rawe nañ ñu fa junni baat ak juróom-ñaar téeméer Kër Moussa mënuñ ñu rawee loolu nga xalaat gañe département ah dootul am ah mbégg yaa ko mais en tout cas liggéey bi. on il y a un écart de 1769 voix à Kër Moussa Kër Moussa dañu leen war a jàppale ci dem ñun waa Thiès benn bis rek ñun ñëpp ñu dem Kër Moussa ñii dem village yu Suul ñii dem village yu Thiambo ñii dem village yu Kër Mata noonu la ñu war a def jàppale leen ñu gis ñu am na benn élection maag Adja bi ñoo fa dem ñoo Issa Issa invité ñu seen village ba dañ ne suñ ñëwul duñ vote ñu suñu fa demul duñ vote mais bañ ko demee au moins gagné nañ ko. c'est comme ça par exemple Kër Moussa 1769 voix nga jël Noto bon Noto sax l'écart n'est pas trop important Touba Toul 1014 voix la ñuy faral Touba Toul junni baat ak fukk ak ñeent la ñuy faral bon Noto 560 voix bon bref peut-être Jalan dina renverser la tendance on verra en tout cas euh, gis naa fi sànq ñoom ci nu mu quatre cent boo fanden junni baat ak ñeent fukk ak benn vraiment il faut nga travailler pour renverser la tendance ah mille quatre cent voix la ñu pare njëyeen sirax comme li ma waxoon ñun ñoo fa gagné deux mille voix mais njëyeen sirax situation dafa changé ndax le maire est parti est ce que les responsables de njëyeen ñoom Mor Sène ñoom Sène est ce que di ngeen mën a maintenir ou non ça la masse oui oui je ko ne en fait mooy loolu mooy kii soo jëlee par exemple Ngoundiane c'est à peu près 1000 voix lañ ñu farawee Ngoundiane 1000 voix nga jël Kayar c'est 1300 voix doyee yow moom seen maire bee leen xaw a def coup mais 1300 voix la ñu rawee à Kayar waaw dinaa la jox après donc nga jël Thiénaba c'est 817 voix. Euh, Tasset aussi c'est 800. Bon, il y a le patron de Ngundian qui est là, qui arrive, Ablaye Gora. En tout cas, c'est situation yooyu ñoo fi nekk. Maintenant, ah bi Thiès ville def Thiès ville mooy commune est commune nord ak commune ouest moo tax écart bi wàññeeku ba 1290 fois ndax à gagné nañ fa ak différence trois mille quatre cent voix mooy ñun rawee nañ leen est ñetti té ñetti junni ak juróomi téeméeri baat mais dama ni waa est loolu dañ ko war a yokk par exemple suñu rawee woon juróomi junni wala juróom-benn junni dina tax même département bi suñu kiiyee yenn yi en Sankharé waaw dina gën a moom côté boobu la aussi lañ leen di gën a xaar nga dem koo nord gagné nañu ak mille quatre cent voix mais par exemple si nord ñoom la ñu defoon trois mille voix dina tane dina tax peut-être écart yu département bi dinañ ko mën a kii un peu à l'ouest c'est huit cent huit cent voix par exemple les suñ demoon ba deux mille voix nga leen ak deux mille bois dina tax dix mille voix yañ leen raye woon ca élection locale yi passé duñ ñu mën a dab mais lenn moo ci metti personnel politique bi ñu defee bi ñu defee résultat yi gars yi ñu rocc daal est-ce que ñoom ñi ñuy rocce ñun am na ñu ñuy dugal pour combler leen ah man de présenté guñ ma fi benn kii d'envergure c'est vrai à Tassette y a le responsable du PDS qui veut nous rejoindre à Tassette quand même il est assez puissant mais du loolu dañu war a ñun xam ni Thiès xolu Thiès waaye Idrissa Seck moo ci nekk xolu waa Thiès soo ko xottee Idrissa Seck ci nekk mais est-ce que tax nañ ko dem seeti leen liggéey ko pour que même yenn saa yi poussière bi ci nekk ñu fomp ko pour ñu mën a maintenir Idriss Seck ci seen xol yenn saa yi par un coup de benn benn benn mer bu ndaw tax dina tax ñu benn mer bu ndaw ñàkk a seet dina tax ñu def leneen loolu nag mooy suñu liggéey moo tax ci côté boobu laay interpeller ñu responsabilité ñëpp ñu gën a takk suñu digg gën liggéey surtout les jeunes jigéen ñi vraiment. man de aw ma lu ma leen reproche donc man damay bàyyi rek su ngeen ma mayee ma bàyyi Adja Garmi dafa am lu bëgg sànni donc avant peut ñuy ubbi responsable commune département bi ngeen may.